waaw waaw ừ nó waaw soxna si dañu bëggoon xam yow feebar bi kañ la la dal man daal teew la presque heure yii laa fekk ma ma toog noonu ci bëccëg bi di sama bopp bi commencé metti ma ne ah man de sama bopp bi mu ngi metti noonu xale yi dama bopp buy metti ñu naa ñu ah ma yow kañ nga gëj wax affaire bopp bu metti ma ne ka amande bon tax jaaxal na ma sax parce que man xama bu may booy xama ñaata kii ngi nii yoo xam ne affaire tension bopp yëpp kii gisatuma ko mais nag yaram bi la jàpp rek ak mënu woon lekk loolu daal dong la mais dara méttiwuma dafa mel ni daal mel ni sa yaram daal ñu jàpp dóor la rek dóor noonu nga tayal ma tëdd nag si ëllëg sama yeewu fu jóg problème na ma continuer ko continuer ko ba xaw ma ñaata fan daal xale yi ne léegi daal dañuy woote fekk sama goro bi moom it mu ne affaire tension moom moo jëkk def mu ne tension ma ne ko demal seeti tension affaire tension baaxul loolu lañ ko daal di wax loolu mu ne dañ ne ko est ce que ne foofu du foofu la ko jëlee ndax ci médecin bi wala ñu mu dajeel foofu. ah yow ban la enquête yow est ce que xam nga fan nga jëlee feebar bi. ah man de dama ne nag comme sama goro dem nañu ne ko moom la am ñu téye ko te maa ñooy bokk di toog di waxtaan nde du ma lekk ndox ñoom sama dañ may toggal à part comme dama amee illusière. lan nga yéeg daal ban la waxee ne yaa ngi ak feebar bi. tiit naa ndax xam nga jaboot bu sew nga yor ko. dëkkee maa bay taali dama jabootee góor tiitoon naa nag ba fii ma toll nii sax tiit naa mu ma sant yàlla nag julli ci yoon tamit ba mu bari di ñaan yàlla rek di julli nag rek di ñaan gëm nag ma ne yàlla moo koy tege ndax man trois mois bi ñu laata wax affaire bi bi commencé di wax ne commencé na dañoo ragal waa Dakar nag ku nekk yem ak yooyu génnatuma trois mois yoo xam ne génnuma sama kër man waaye loo gisee faj bi foofu tubaar fakal waxuma la dara mais jàmm ji rek ci xale yi xam nga nit bu feebaree nga di ko di dëfal ak di wax ak moom rek da koy daal di may dëgër laay. kañ nga génn. tey ci suba. léegi nag sa njaboot bi sa waa kër yi kañ la ñu yóbbu ñëpp fa nekk. ah waa ñëpp a dem mais sama sët benn bi ñenn ñi amuñu ñi ci wate li amuñu. mais am na sama benn sët boo xam ne moom demoon na amul mais dañ ko bàyyi tey moo war a ñëw ñu nekk. est-ce que feebar bi sa yaram. am kay am kay tayal bi daal moom mu ngi fi mu ne maa nii tëdd. dama boo jullee ba pare rek damay daal dama sangu rek changé yére daal di tëdd. tey lan ngay dénk euh, askan wi. moom affaire bi daal man ne muy dalee nit jaaxal na ma te jaaxalul yàlla. bu ñu ne maa ngi takk sama masque. dëgg ku yebbu daal takk sa masque te mooy parce que man loo xam ne ma kër gi demuma fenn ñetti weer ma demuma ndax sama benn tànk bi sax dafa doon metti jékki-jékki neew bi rek di metti